Sunugal 24 sa juste valeur. alors sëñ bi nuyu nañ la. xëy na la yaay booy. ñu ngi sant ba alhamdulilah. alors ñu ñëw fii tey seen communauté fekk leen ngeen di def li ngeen xamante ni moo di vote ban réaction nga ju mën wax lan nga ci yëg. waaw ça instant ñu ngi sant yàlla bu baax tout se passe bien alhamdulilah quoi ñu ngi nii ñëw mais amul amul benn problème daal macha allah. waaw ñu ngi xaar di xool tamit di bàyyi xew ci lu bëri bëri di bàyyi si lépp daal. am ngeen ci yaakaar. bu baax a baax a baax incha allah. nga gisee li nga xamante ne mooy force de l'ordre. waaw ça va tamit ñoom tamit ñëw nañu ak euh, benn dole boo xam ne ñu fiy taxaw yaakaar nañu fii moom ñëpp xamante nañu quoi ñëpp xamante nañu daal alhamdulilah du am du am benn problème daal macha allah du am problème parce que fii seenu daanu daal. donc ngeen xaar ki nga xamante ne mooy di Barthélémy ak papam waaw comme d'hab comme d'hab moom dafay faral ñëw ay treize heures lay ñëw su ñëwee day bëgg a perturber mais di nga ko may parce que xamante ni daal suñu biir kon li nga wax rek fii nii Sicap la daal amuñu amuñu yenn problème ak ñeneen wala xamante ni suñu biir en tout cas. moo tax à chaque fois bu ñëwee di bëgg a perturber lan moo parce que il est comme ça ñu ñoo ko fi teg bar bar ñu ñoo ko fi teg kon xamante suñu biir day bëgg a ñëw bëgg a dox suñu maan te loolu jeex na fi ñun bon dañu am tuuti foncé wala waan ñu jóguñu fenn ñëw fi lañ dëkk fi lañ juddoo kon xamante ne suñu biir. ok ça va soxna si. ça va bien sant alhamdulilah alhamdulilah. alors ñu ñëw tey fii fekk la nga nekk ci li nga xamante ni moo di bureau de vote yi gannaaw bi nga voté ba pare ban réaction nga ci am. waaw tout s'est bien passé accomplir ñu suñu devoir di xaar ki gagné rek mu gagné si jàmm. Mhm. lépp nekk sa ñu accomplir ko lépp si jàmm daal dans la paix. Mhm. nga gisee lieu de vote bi. ban calme na maa ngi woon ci bureau 4 amul woon trop de monde waaw tout s'est bien passé à l'intérieur aussi c'est bien organisé. donc mën nañ xaar second tour wala mu yem fi. ba xawuma nag lu yàlla def daal muy noonu. lu yàlla def daal muy noonu bu dee second tour a gën nag ñu def ko bu dee premier tour daal ñu def ko aussi mais ku ci nekk aussi bu lu nekk rek résultat boo am ku nekk na ko nangu xam na yàlla tànn na ki muy tànn depuis. ok merci. Ah, maa leen di fay dëgg la vot bi moom vote nañ ko ci jàmm jaar nañu ci yoon man vote naa maa ngi nii di ñibbi sama kër waaw ñaan daal que le meilleur gagne te bu mu am benn problème loolu rek la ñuy ñaan que le meilleur gagne te sama candidat laa bëggoon mu gagné waaw incha bonjour monsieur. Euh, oui, le premier constat qu'on a fait est que ça a bien débuté dans le calme et que aussi les gens sont en train de, de voter dans la tranquillité. Il y a une mobilisation, c'est pour signifier, cela signifie que euh, les Sénégalais sont intéressés par cette élection et les consciences sont tranquilles et on sait quand même comment défendre les positions. Voilà. Euh, est-ce qu'on pourrait s'attendre Euh, bien sûr, les, toutes les conditions sont réunies parce qu'en élection, il ne faut pas dire que les paramètres ne sont jamais figés. Donc, euh, il toujours le suspense. Et voilà. Ok, okay c'est moi qui nuyu nañu. fay nan la. waaw ñu ñëw gis la ngay ñaxtu lan moo xew. waa xam nga lu xew ci suba ba léegi dafa jéggi dayo parce que ñun fii mu nekk am nañu une quinzaine de militants yoo xam ne dañuy ñëw seen tour de figure ci list bi et puis bu nu vérifier ci fichier global bi. bureau un ba 9 seen tour figuré wul fenn te législative yi passé ñoom ñëpp fi la ñu voté loolu nag moo ñu jaaxal ndax xam na ne sàcc bu nu lal moo indi loolu yëpp waaw woon na leen ñuy wax waa ñi ngi concerté wu pour xool nan na ñuy def te ñun législative yi cas yooyu bu amee dañoo émarger ci suuf nu voté mi fii mu toll ren dañ euh, présidentielles yi dañ ko bañ voilà loolu nag nanu ne ça ne passera pas duñ ko nangu voilà mais ce que est changement dafa am mënul am soxna si changement bu amee xanaa mooy changement sàcc gi sàcc gi mooy changement bi mais amul leneen parce que ñoom xam nañ ni commune bii mosuñu fi neexle te duñ fi neexle loolu moo indi sàcc gi ñun xam nañ nu mu demee xam nga leen yaa leen gën a xam c'est l'état ñoom ñoo def lii yëpp njuj njaaj yi ci ñoom la jógee xam nañ leen bu baax non non mu voté te fii mu nekk gis nga heure bu jot amagum nañu une quinzaine de cas yu demee noonu fii mu nekk nu ni muy gën a soree xam naa dina yokk waaw day gën a yokk ok merci. tur man maa ngi tudd Ablaye Keita. Ablaye Keita hmm, ñëw naa depuis huit waaw ñëw naa def naa li ma war a def waaw wate naa maa ngi ñu war a ñibbi sama kër. amul complication wax dëgg yàlla gisuma benn complication quoi. waaw ñëw naa xanaa am naa tuuti retardement bi ma ñëwee huit heures ba daanaka ban heure moo jot ni voilà voilà maa ngi ni doog a voté di génn dem ñibbi sama gàlle quoi dem jàpp sama njàmbur kese quoi. waaw waaw ni ma ko gisee ni moom am naa ci yaakaar bu baax a baax quoi vraiment am naa ci yaakaar quoi carrément te ñaa ngi ñaan aussi nu mu déroulé nii mu terminé ci jàmm ak salaam quoi. amul benn problème quoi waaw Sénégal daal lii la soxla quoi alhamdulilah rabbil alamin jërëjëf waay. Aminta Ndiaye laa dëkk Medina. ñëw nga voté euh, laa ñëw même pas dix minutes a gis déroulement bi ah ça s'est bien passé parce que rang baa ngi dox amul benn problème de nit ñaa ordre am na daal. du am benn problème waaw. ñu génn ñëpp voté ñu génn ñëpp voté ñu génn ñëpp voté daal. bi fay di liggéeyee hôpital Abass ndaw doon ñëw tey suba voté si àlla la Médina. alors ñëw gis nit ngi génn en masse di si ban jàngat nga li ma ciy wax mooy euh, nit ñi ñëw nañ avec sérénité ak dal. Euh, ku ci nekk yaa ngi laajte fi nga war a jëm te orientation bi jaar na yoon euh, ñi nga xam ne peut-être ñi ngi ci bureau de vote yi aussi ñi ngi def seen liggéey ni mu waree donc may ñaax euh, ñi nga xam ne ñëwaguñu par exemple ñu jéem a génn ñu def li ñu war li leen war. Hmm. jërëjëf Diagne man ak sama soxna dañu inscrire man inscrire naa bu yàgg ci fichier électoral ma waroon voté Mbour Diop bureau numéro 16 ma dem ba dugg foofu ñu ne ma nekkoo ci fichier électoral bi. maanaam ñu xool gisuñu te sama quarante mu ngi nii sama quarante ngi nii Mbour Diop numéro bureau numéro 16 mu ngi nii inscrit sur le électoral ñu ne ma neew ñu ne ma nekku ci mu ngi nii mais mais est-ce ko woon a vérifier jotuma ko woon a vérifier ñoom man daal ñëw naa 7 heures rang naa fii ñu ne ma. bokk nekkoo ci fichier bi euh, que da dem préfecture au niveau de préfecture nga def nga réclamer foofu plainte man la man mënu ma dem préfecture mënu ma xëy 7 heures rang ba heure bi après dem préfecture loolu du ma ko def. mais mais léegi nga bëgg damay dem suma kër toog jàpp sama ñàmbur. léegi ki nga bëggoon voter nan nga koy def. ah amu choix. gannaaw man def naa sama yéene maam sama devoir citoyen def naa ko inscrire naa heure vote jot na ñëw naa pour voter bon. ñu noonu daal xaw ma xaw ma yàlla mu ñu tiim xaw ma xaw ma man li ma waroon def yëpp daal def naa ko li moom xaw ma lu tax lii am ko quoi sérieusement non man kese la moom man kese la sama bureau moom man kese laa fa gis kon kaa xaw ma nag sama soxna voté na ñoo benn bureau ñu man moom ñoo inscrire mais moom voté moo ñu gën a ci maanaam euh, xaw ma fichier électoral bi xaw ma ñu gën ci veillé quoi parce que tamit xam nga neexul ni déplacé wu inscrire ñëw ba fii pour voter rang pour def euh, devoir citoyen am ñëw ñu ne ko mënoo voter te nekk na en règle xam nga neexul tamit boo nekkul en règle la on peut dire ne yow nekkoo en règle mais man maa ngi en règle. Euh, au-delà de nga constaté bon déroulement vote moom bon gisuma ci benn problème gars yi ñu ngi rang rang yi mu ngi dox normal et puis ñu ngi may troisième âge amul benn problème quoi franchement côté boobu moom gisuma ci problème. ndax da ngay dem mairie euh, yaakaar ma no instant yi damaa sonn quoi dama teel a ñëw fi trop. yaakaar ma wala jëm si plateforme bi xool fan ba ba tey loolu mun naa ko jéem parce que am mun naa xool ci connexion bi ak sama téléphone ba tey loolu mun na nekk loolu mun na nekk. jërëjëf. maa ngi tudd Abdou Khadir Diaw. waaw alors euh, Abdou Khadir Diaw mooy si njëkk a gis euh, mooy responsable yeneen genre APR yu nekk fii nii di wër si nit ñi naan leen da ngeen voté di leen diw. soo leen gëltee bulletin soo leen génnee bulletin ma jox leen deux mille ak trois mille loolu bëri na fi trop. waaw bëri na fi trop waa commencé na fi si biir moom bëri na si trop daal waaw. waaw gis naa si ka am pagaay kay ba waxtaanee yéen responsable mais nanguñu nanguñu ma dégg. yow da ngay milité benn parti. non milité benn parti man maay président association jeunesse Médina Dakar. Mhm. ah gars am seen ful ak seen faayda bu leen nit wooyee ne ne leen diw ñu bañ ko faale rek ñu dugg def seen devoir rek xool ku leen ku leen doy ko. Ah, ko. waaw mu voté naa ba pare waaw. déroulement vote waaw mu ngi moom saa si bee paase moom muy jàll nànk-nànk moom waaw. waaw am na si ñeen ñoo xamante ne ñëw nañ fii ñu leen carrément nekkoon leen si fichier bi de bi fa élection législative voté nañ am na si ay cas yu bëri si biir sax si bari sax ah bëri nañ de am na ñu bëri ñu fi nekk de ñu bëri ñëw nañ fa ñu leen nekkoon leen si fichier bi. ñoom dañoo war a génn ñëw def seen devoir. fexe ba voté mais waruñu toog seen kër rek te voté yu ñu ko ñëw ñu laaj la kan nga voté kan nga voté loolu tam amul sens lu am sens daal yu ñëw fii voté waaw. Sunugal 24 point net soyez le premier à informer sport société actualité reportage interview l'information à sa juste valeur c'est ici même Sunugal 24 point net